demoon nañ sax bañ jàpp ne Jili bàyyi na làmb Baye Ndiaye indiwaat ko boole ko Serigne Niang bu Thiès xam nga Jili Mbaye comme lu ma xamee Tapha Gueye de noonu laa ko xamee Jili parce que ñoom Jili Mbaye Gris Bordeaux mhm. Ablaye ngoom ñu ko doon wax Zallo numéro deux waaw sa turandoo ñoom ñooñu ñun ñoo doon nekk tout le temps mhm. làmb ji dafa daan tëj ñu continuer da di nekk entraînement ñun daawuñu noppaloo mhm. kon Jili xam naa ko mu dem ba ci làmb ji mu mujjee woon tukki ji ànd ak Moustapha ñu def ay deux ans yooyu après mu ñëwaat. bu mu ñëwaatee def na ay deux combats xaw ma. Mhm. mais gëj na bëre. yàgg na lool. xale bu mën bëre la ku mën xeex la. jiili jiili ku fonk entraînement la tamit. Mhm. boo demee ci Cheikh Niang. Cheikh day bëre Dakar day bëre ci àll bi. àll bi li mu bëre ci àll bi est-ce que ëpp lu mu bëre dakaar mbër la boo xam ne mbër bu mën a bëre la. Mhm. donn mbër gi nag. mais damay wax ne papa ji moo ko dàq bëre. ah Cheikh Niang papa ma koy dàq bëre booy ñëw moo ko dàq bëre. Hmm. ñi xam papaam xam nañ ne moo ko dàq bëre man du ma d' accord papaam bëri na ay combat yoo xam ne. ay combat yoo xam ne la nga gis ne technique pure bëre pure. Hmm. la fay wane. combat boobu nag nekk combat bu neex. Cheikh Niang tamit xaw naa ko gëj a gis mu bëre. waaw xaw na gëj a bëre tuuti. donc ñaar la yoo xam ne mais mu moom. mu mujj a bëre ji li moom mu mujj a ji li. Mhm. mais ñaar la ñoo xam ne ñaar ñu mën a bëre lañu. Mhm. dama xamul nag ba xam ndax gëj a bëre bi ñu gëj a bëre. waaw dina ci joué wala du ci joué. Mhm. parce que tamit compétition moom. mbër moom da ngay compétir. Euh, sportif sax laay wax da ngay compétir. soo compétir moom il faut nga am ay repères yoo perte. mais ji li mbay ba ñu xamoon ak bo Cheikh biñu xamone combat bu neex la wara doon seetaan naa nag seen signature. mais Cheikh mi ngi wax ci comme mom diru dara ci kanamam waye na def attention tamit aussi. ah mu def attention ci jili si dafa wara def attention. parce que jili mbay xale la bo xamne ne. xale bu mën beure la bu mën xex la. mom tamit xale bu mën beure la bu mën xex la. bu nek na combat bo xamne ken warul xeb sa morom ken ku ne da nga wara jox sa morom cër. bi mom mom nga jox ko ko. parce que euh, moom bu gëmee ne moom mën jiili saa pour cent rek pour man dafay trompé wu. Hmm. waaw. Hmm. kon warut a ñëw de confiance. non warul ñëwee accès de confiance parce que Djily Mbaye du mbër boo xam ne da ngay ñëw rek taxañ ko daan ko dem yoon noonu. Djily luy fooram. Djily li muy gën di bëree jàpp ngem. Hmm. dinay jàpp ngem dinay mboot. dinay jàpp dinay xar xar. am na ay quelques qualités yu ba yu yu muy yu muy bëree. te dinay song tamit. dinay ba pare xeex bi tamit mun na xeex. yaakaar naa bu fekkee seetaan ngay combat gis nga ni jiili day xeex. bu bëre day xeex ci biir xeex bi lay bàyyi xeex bi nag songu dem bëre ji. dem bëre ji Cheikh qualité Cheikh Niang tamit mun na xeex mun na bëre moom itam day bëree tànk tamit aussi. day songu day bëree tànk donc côté boobu lañ ci bokk la ñoom ñaar. te mas nañoo bëre ah Cheikh Niang jiili gañe ko mais Cheikh Niang dina ko keroog dama la dóor ba ngay bëgg a si. moo daan moo ko woon ci xeex bi waaw. kon ñoom ñaar dèjà xamante nañ. waaw comme mos nañ laale xamante nañ. bien sûr donc combat la boo xam ne combat bu neex la. bu neex la bu neex la Babacar. am na solo grand zal ah Alassane Samb maa la lay ziar bu baax a baax a baax di nuyu King Katos ah ah ndeysaan euh, <laughs> moom nee na may leen ma 500 ngir yàlla ah waaw xanaa après grand zal dinaa ko booleeg yow mu may la 500 mais yéen ñii seetaan daal di commenter di seen ñu ngi leen di bëgg bu baax a baax a baax